daa mel ni alxiina dañ ko daan def ci yooyu jamono mu ni moom nag mooy ki bëgg marchandise mbaa daal ku bëgg dara ci lu ñuy jaay day ñëw ci koo xam ne wóor na ko ne am ko waaye nag kooku mooy dem jënd ko ña ko am ñëw nag jaayaat ko ko yow daal yaa soxla dara dem ci julli ba mbaa ko nga xam ne daal danañ toppatoo loola wóor na ne amu ko waaye nga ne ko demal jëndi ko boo dikkee rek mu jëndaat ko ci yow moo xam na nga koy jëndaate njëg gu toll ne gëm jënde mbaa gu ko yées mbaa gu ko ëpp wala sax da nga koy jëndaate njëg goo xam ne day teew leen la bañ a teew da ci cosaan daal mooy ak dagan lañ ciy wax ba mu des nag ay benn benn yoo xam ne moom lay bëgg a génne daalañ ko jëflante te yoon da koy bañ bi mu ko wax moom dañ koy aaye mooy nga ne ko nangam day dama ko yittewoo dama jënde ko fukk yoo xam ne da ngay fay mu teew boo dikkee nag mu jëndaat ko ci yow ci fukk ak ñaar yoo xam ne day jëm dele mel ne dama jënd paquet sàngam ci fukk nga fay mu teew boo dikkee nag man mu jëndaat ko ci yow waaye bala ma laa fay nag ñu am ci weer weeru dee laa lay fay fukk ak ñaar day mel ne dalaa lebal fukk jënd nga boole ci bu àggee ci fay nag di ko fay fukk ak ñaar xam ne ñaar yëpp topp ci fukk ya day mel ni daa boole yaar am na ca dellu ci loolu gam la lebal fukk jënd mu teew ak jëndi gam ko jëndi indi yëpp la ndegam nag masal mu ci nekk boo ko dama jënd ko mën naa am lii topp ca ci seeni jamono ñoom mën naa am itam lii dañ caa topp su fekkee da nga ko ne nag historia lii bi xasharit naq dam wi dama jënd li ma ko ci fukk yu teew xam ne boole nga ci lii ji boo ñëwee nag mu jëlaate ko fukk ak ñaar boobu dañ koy aay li nga ko ne boo dikkee mu jëlaat ko ci yow fukk ak ñaar dañ koy toj ba mu set wecc leen rek jëndal na ko ci fukk yu teew nga war koo jox nag fukk yu teew kon ba noppi nag war koo jox neexal ci jëndali ji la ko jëndalil dañuy seet nag ku mel ni moom bu doxalee ak yeneen bu mel noonu kenn la mu ko war a jox ak li nga ko naroon tegal ci fukk yi muy ñaar lu ci gën a néew rek moom lañ koy jox bu fekkee nag bi nga ko ne istoriha boole woo ci lii da nga ko ne dama jënd rek nangam ci fukk teew mi teew boo dikkee mu jëgaat ko ci yow ci fukk ñaar waaye néew ko istoriha lii jëndal ma ko kon jaayu ñaareel gi moom la ñu yéel ma ñu jàpp ne da ngay jël loolee bu ko indee te ameel ko fukk ñaar bu yeru deexee nga fay ko ko kon seetlu nga jënd ko ci nangam boo dikkee nangam ak jëndal ma ko ni ñu wutee masal ñaar bi mooy nga ne ko damay jëndal ma nangam ci fukk tey damay sart ne fukk yi yaa koy fay teewal boo dikkee nag ma jëndaat ko ci yow ci fukk ñaar te damay teewal ma itam fukk yeeg ñaar li yàq loolu rek mooy sart ba nga sart ne ko boo dee jënd yow ci sa bopp yaay fay mu teew boobu dañ koy aay ndax ne nday boole jëndal la ba noppi itam lebal la nga tegal ko nag ñaari dërëm mel na kon dañoo boole salafun ak ijaara bi shartin fa huwa salafun wa ijaaratun bi shart looloo koy yàq bu ñu nee dañuy aaya anam bii jënd li ma fay fukk yoo xam day teew boo dikkee mu jëndaat ko ci yow fukk ñaar yoo xam day teew ndegam aaya nañ ko dañuy jàpp ne bu jëndee ba ñëw da ngay jël lam jënd te jàpp ne fukk yëm fay ci ba mu jënd rek yow yàq ko jëndee ñu seet nag léegi ku mel ne moom bu la jëndali woon lu mel noonu ci fukk luñ ko war a neexal ñu ñee nangam di seet neexal boobee ak ñaar dërëm yi nga xam ne moom ko noon moom koy tegal ci fukk yi lu ca gën a néew rek moom nga koy ameel li tax mu ne fii maa nag mooy daa bëgg a boole masala mi ak ma nga wees woon ci gannaaw mooy ba nga ko ne historia lii bi xasirit naqdan waxoon naa ko baax a tolloo fu ci nekk daal dañuy seet ku yónni woon ku demee noonu neexal bañ ko ci war a jox ak bénéfice boobu nga xam ñaar dërëm la tollool ci ñaari masala yi bu ci nekk lu ca gën a néew rek lañ koy jox mu ne nag bi ñu weesu nii moom sart ba nga sart ne ko yaay fay ci sa poos mu teew moo ko yàq waaye bu fekkoon ne moom moo dem rek jëndal la ci fukk ci teew mu teew ci coobareem waaye sartoo ko woon kon dara du ca nekk te su boobaa kon bu dikkee nga jox ko fukk ñaar kon ñaar dërëm yooyee moo ko moom ndax sart ba nga sart ne ko yaay fay teewal ci sa bopp rek moo ko yàqoon mu ne ba tey bu fekkoon ne yow ci sa bopp yaay teewal fukk ya yow miy yónnee moom mu teewal moom ci bopp ci coobareem ñooy moo dara du ci aay mais nag bu fekkee boole woo ci lii da nga ko ne dafa jënd ko ci fukk yoo xam ne yow yaay fay mu teew waaye néew ko nag mën ngay jëndal da nga ko jënd ko rek ci fukk yoo xam ne damay sart ne yaay fay mu teew waaye néew ko mën nga koy jëndal nga ne ko nag boo dikkee mu jëndal ko ci yow ci fukk ak ñaar ñàkk nag ñàkk boole lii jëndal ma xaa ne ko jëndal rek moo tax ñu def ko lu ñu sit mooy njàpp ne daal bañ ngaa def fa gën bañ ngaa def fa gën waaye dañ ko wéyalee itam du wàññi dara mooy mu ñëw rek nga jox ko fukk ak ñaar yu teew fekk moom yaa ko sartaloon mu jënd ko ci fukk yu teew ne lii day xaymaam juróom-ñett fukk la jël ko nag jox ma téeméer ameel ma téeméer daa xaw nuru lebal naa la juróom-ñett fukk nga tegal ma ci ñaar fukk mu daal di mat téeméer rawante na nag fekk mu njëkkoon laa wax ne la lebal ma juróom-ñett fukk bu ma lay fay fay la téeméer nga ne ko loolu di moom tey riba dëgg-dëgg yoon da koy aaye waaye jëmm ji moom day jar juróom-ñett fukk jël ko te ameel ma téeméer ñu ne noonu daal sib nañ ko lool nañ ko moytu bu baax a baax moo xam moo xam ci jëflante ci ayina bi nga toll la wala ci ñeneen la ba tey ne sib nañ nga ne ko jëndal nangam boo dikkee man naa ko jënd ci yow tegal la ca tono mooy loo jënd rek boo dikkee naa tegal dara muy bénéfice waaye taxul nga nga ràññeel la ko cee tegal nu muy toll da nga koy sib rek yem ci waaye nag bu fekkoon ne ko ràññeeloon ne ko boo ko jënd boo dikkee ma tegal la ci nangam moom ràññeel ko mu daal di àgg ci araam bu xappatee ci digg bi wax ko la koy jox bénéfice mu araam ci kaw nag mu boole ci jëndug ñaareel ga di jëm dele bu fekkee jëndug ñaareel ga nag moom day doon teew mi teew mu daal di yem ak léegi mu bëgg a wax ca kanam nga xam ne am na ñu wax ne kon day dagan am ñu ne kon day doon lu ñu sib mu daal di yem ak istariha bi hashrat naqdan wa ana axusuha minka bisni hashrat naqdan fa fil jawaasi wal kaaxati xawlaan boo déggee jëndug ñaareel ga mooy rek jëlaat gëm ko jëlaat ca moom te di ko ca tegal bénéfice bu fekkee day jëm délai bu fekkee di jëm délai moom xam ne teew mi teew la doon mu daal di yem ak kon bii nga dégg léegi nga xam ne ndax dañ ko sib am sib amu ci sax ñaari nekk lay jële ci alimaam Malik adam boobu ba tey day aay mooy nga ne ko damay jënd nangam ci fukk yoo xam ne moom dangay juboo koy jaay ci mu jëm délai yow nag boo dikkee mu jëndaat ko ci yow ci limit yoo xam daal lay jox fi saasee saasa mu teew da nga boole nga ci lii ne ko jëndali ma ko ci fukk yu jëm délai yow nag boo dikkee maa ko jëndaat ci yow ci juróom-ñett yi teew day mel ne ko nañ ko lebal juróom-ñett rek moom nag bi àggee ci ab ba mu jox la fukk muy lebale bu ànd ak ndolleen rek danga ko lebal juróom-ñett sart mu doll la ca ñaar wateel sama kon dana war bi maa ci la nga xam ne amara digle na ko wala ñu xàjjalu turéeful gaawe dafa ñeel ka ñu yónni woon ak aqallu la gën a néew ndegam anam boobu aay na yow mu yónnee woon yaay féetewoo njaay moomee te ameel kay jaay fukk te nag bul jox juróom-ñett ki nga waxoon ne ko boo dikkee ma jox juróom-ñett bu ko teewalal dara bu fekkee joxoon nga ko itam na la ko delloo moom daal boo toppee aaye gi ñu ko aaye yaa jënd loolee ci kaw bi ñu àggee ci dele ba ni ki weer nga fay fukk li nga ko doon nag boo dikkee ma jox juróom-ñett yu teew bu dikkee bul ko jox dara su fekkee ne jootan nga ko ko jox ba tey na la ko daal di delloo ñu seet nag ku la jëndale woon lu mel noonu te danga ne jëmm ji neexal bu ci yàlla rek nga jox ko ko wala woo jox lu mis li bu fekkee da nga ko ne historia te boole woo ci lii ci masala yi nga toll kon jaayut ñaareel nga moom la ñuy dindi loolu mooy li nga ko ne woon boo dikkee mu dindaal ko ci yow juróom-ñett yu teew mi teew moom la ñuy dindi dindi ga mooy nga delloo marchandise ma te nga yónni woon ndegam jëmm jaa ngi fi taxaw réewul deful dara da nga koy delloo jëmmi lam jëndi woon ndax bi yoon boole woo ci lii da nga ko ne woon rek historia te boole woo ci lii dañuy jàpp ne kon ndegam marchandise maa ngi teew baa nga ne ndegam jaay maa ngi teew rek delloo ko ko mel ne mosoo ko yónni dara su fekkee nag jëmm ja raw na ñu seet bis ba mu la ko joxee fu xayma ja toll woon nga fay xaymaam bayxul xëy na nag ñëw na ci xadisu ibni omar radiallahu anhu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ida tabayaatum bilxina wa axadtum adnaab albaqar wa raditum bizarhi wa taraktum aljihaad sallat allahu alaykum dullan laa yanzihuhu xataa tarjihu ila diinikum axrajahu abu daawud fil ijaara te lam tudde baabu nahi xanil ayna yonente bi dafa wax rek julli ñi buñ demee ba bànneexu àdduna àlli àdduna jaral leen lu ne ñuy jaayante ci ayna am na ñu ne bàyyi xi ne mooy rek nga jaay ko lu jëm dele wëlbatiku jëndaat ko ci moom ci saasa ci njëgu yées googu te fay ko nga xam ne moom daa bëggoon rek xaalis moo tax mu jënd ci yow loolee waaye yittewoo loolee taxutoon nga xam loolu daal di gaaw nag jëndaat ko ci moom ci njëgu yomb lu tee nag mu amee la bor boobu bu ñu àggee ca waxtu fay woo mu fay la mel ni nga jaay ko loo xam ne bu weer wi dee la la war a fay juróom fukki junni mooy bi ko jëlaat ko ci moom ci fanweeri junni bàyyi nag mu daal lay ameel juróom fukk rek moom weer wi dee lu mel ni weesoon nañ ko ci bay waxul aajaal am nañu ne noonu mooy bay xulaa yi naa ak loolu di am moom bu dee noonu lu araama araam la nee nañu nag mën ngaa dem ci banque mbaa lu mel ni banque mu jëndal la nangam muy matériel muy leneen ba wóor ne jënd na ko ba nga jot ci ba noppi nag nga wëlbati ko yow jaay ko keneen waaye doo ko jaayaat banque bi loolu moom dagan na ndax lebaluloo xaalis ba nga ko cay tegal dara dalaa lebal rek matériel nga dem jaayi feneen amel ko nag njëg nga xam ne moom nga ko ameeloon la ñuy bañ nag mooy ñu koy defee lu bare bari banque bi ci boppam moo koy daal di jëndaat léeg-léeg sax loolee mu ne jëndal na la ko aw tur dong lay doon balaa baax daal muy banque bi ñu keneen koy financé na mu lay jëndal mu jëndal la ko ba nga jot cee jëmm ja ba noppi nag jaay ko keneen daal di am nag yow capital ba nga bëggoon a am man caa liggéeyi nag te du tee nga ameel banque ba moom la nga ko ameel waaye donc ba tey loolee mu lay jëndal moom banque ba mbaa koy financé na jënd nga wóoru ba nga jot ca nga daal di koy jaayaat keneen nag te bañ koo jaay banque ba mbaa kookee nga xam ne mooy financé jënd la loolee muy bor boo koy ameel te addis ba daanoo nag mooy su ngeen àggee ci xër ci alali àdduna ak bànneex àdduna bañ dee xalaatulee jihaad ci yoonu yàlla ndax rek xër ci àdduna ak bànneex àdduna yàlla day xabtal ci seen kaw toroxte loo xam ne du ko teggi mukk lu may ngeen delluwaat ci diineem ji mooy ngeen delluwaat yeesal seen gëm yeesal jàpp diine mu jaral leen seen bakkan